lañuy ndokkeel dañu leen jaajëfal ci topp nga ñuy topp di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu defal yu àdduna ako alaxira ala kulli xaalin seen jataayu asraar ki leen koy defal seen mbokk sëriñ Mamour Sylla Firdawsi asraar tey ñu ñëw ak yéen ci jataay bu am am solo boo xam ni dañoo fas yéene joxe sirru xayu xayum bu jëm ci euh, yoonu jalbul maal ak wërsëg yoonu jalbul maal war yoo xam ne dafay euh, yombalab xaalis ak wërsëg incha allahu taala mu nekk nag solo bu am solo boo xam ni loo gàtt la eh, eh, ànd ak aaya bi nga xam ni dañ koy génne dañ ci dañ ciy génne ay xayum incha allahu taala dinañ ko leeral bu baax bu ko defee nag sura eh, bi nag lu jàpp ñi la isonal dañuy ñëw ci joxe leen ko rek ndax li tax defantool di man ñu ma gudd sax bañ bi doo gudd moo tax ñu bëgg koo tank rek ndax jot yombul te ñuy seetaan itam ñu gën a ko rek xam naa mooy gën ci ñoom incha allah kon nañu ngi ñaan képp ko gën ci jotaay bi nga dal di abonné bu ko defee ngeen like vidéo yi euh, incha allah taala kon daal euh, yoonu sero yi mu ngi nii da ngay def astaghfirullah cent fois euh, nga daal ci toftal tur wi xayu xayum nga sikkare ko ci yaa xayu bi yaa un nidaa xayu xayum moo tollu sa son mais boo ko sikkar ci yaa un nidaa bi nga koy yaa xayu yaa xayum moom nga sikkar ko rek adadu wasala naa muy 1666 eh, moo tolloog juróom ñeenti xayu xayum te dinañ ko leeral boo paree nga sikkar itam ay di xayu yaa xayum nga sikkar ko 1666 sikkar aaya bi eh, وسللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون kasikar ko jeng adadu 174 waaw 174 fois moom koy moom nga koy sikar wasala naa la fi ne rek na yàkkuloon yi mooy ngay sikar gannaaw boo yi ba am na xaatim wasala naa moom lay àndal nga bind ko juróom-ñeenti yoon di ko sangoo bindaat xaatim bi benn yoon ci kayitu xaalis war watadxulu fii jay bi ka insha allahu taala léegi ñu leeral ayu xayum adadu nafsihi bi mu ngi tolloo ak eh, ayu xayum adadu nafsihi bi mu ngi tolloo ak 174 boo ko darboo nag mooy tam mooy darbu mooy multiplier 174 nga multiplier ko par 9 waxoon naa ne 9 moo tolloo musallas xawaati musallas juróom-ñeent mutu la moo toll itam benn benn yi nekk ci góor yëpp juróom-ñeent la moo tax ci góor la eh, gën a am nga darbu ko ci ayu xayum 9 moo la jox 1570 1570 nag moo tolloog aaya bi di wasaral naa dawum fa min haa ruqubum wa min haa yaakulun kon lii soro ba ama am solo la boo xam ni mu ngi nii lu jàppandi la ci mboolem ñëpp ngeen xool ko te bàyyi ko xel incha allahu taala waaw kon daal mi ngi doon aaya bi moom wasaral naa bi min haa ruqubum wa min haa yaakulun moom yóbbu na aradu nafsi bi moom euh, mooy 1576 waaye nag moom boo ko si kër aradu xayu xayum moom ko si kër 1574 xayu xayum moom yaa ngi yaa moom adadu aaya bi sikkar aaya nag moom ci adadu sikkar euh, aaya bi moom ci ci ci adadu ayu euh, insha allah taala xawaatim bi nag mooy xawaatim bi nga xam ne moom moom la àndal aaya biñ moom lañ ko taggee muy wa zalalnaha lahum fa minha rakubuhum wa minha yaakulun moom ci biir xawaatim bi mu ngi duggee ci baytu kursi bi tëjoo ci barku ci baytu ars bi 618 boobu foofu la ubbee 619, 621 ba 626 foofu la jeexee lii mooy xawaatim musallat man aaya bi moo ci dem alxawaatim na nga koy bind taktub alxawaatim fii waraqati ma waxtu xool fii jaay bi da nga koy bind ci këyitu xaalis nga def ko ci sa poos waaw wala ci sa kalpe wala fi ngay def xaalis incha allahu taala waaw wala te ci sa suuf sa ci sa suuf sa jaada boo ko bind nag ci kii bi mën nga cee bañ a wala laayee nga bind xawaatim bi noonu rek boobu rek nga bindal xawaatim bi nag moom juróom-ñeenti yoon di ko sangoole ci def parfum bi ñuy wax miski incha allah ko def yàlla mën na laa ubbi yombal ci wàllu wasu rek ni wasalaamaaleykum